asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar comme ni ngeen ko xamee nag 100 pour cent làmb tey nag fi nu ñëw nii ñëwoon nañ fi ñu fi indi woon moo doon soq gàmmu géey yaa ngi dégg combat bu ñu doon xaar lu bare bare bare bare attente bi bëri ci amateuru làmb yi ak waa diaspora bi yàlla dogal nag coronavirus ñëw ñu ñaan ñu ñaan yàlla mu jeex ak jàmm bañ a tee dal kenn te ñi mu dal wér loolu nag bi mu ñëwee moo tax làmb ja amatul yaa ngi dégg ka ko nag mu ngi nii toog di baaba jaw xaritam doomu ndeyam am di Moustapha muy nuyu staffu euh, Thiam production bi yëpp Abba maa ngi koy bégg sama turandoo mais du nuyu tamit ki nga xam ne nii mooy Modou Roubé <laughs> Modou maa ngi koy bu baax a baax mais damay jox kàddu ki nga xam ne nii nag mooy am di mi nga xam ne moom mooy bras droit wu Baba Diaw balaa may ñëw si Baba Diaw principal bi nga xam ne moom moo tëggoon làmb ji am di maa ngi lay béggee di la ziar. waaw Babacar maa ngi lay fay maa ngi nuyu sa waa ji sa caméraman di wax asalaamaaleykum monde làmb di nuyu ñëpp waaw di nuyu ñëpp. di jox ñëpp seen wàccuwaay. nga nga sa ànd ak Baba Diaw ngeen ànd tëgg benn combat wala sax tëgg combat mu jàll ngeen di jàppal soog gi ñu dem ba dernier ñu annulé ko ndax coronavirus loolu en tant ku investir xaalisam loolu bi ñu ko yëgee loo yëg am bi loo njëkk a xalaat. waaw feebar bi moom dañ ci ñaan avant tout. dañ ci ñaan en tant que jullit en tant que ay senegale quoi li fi am yem fi kaay fi am yëpp yem fi. ñun xew-xew loolu biñ ko déggee ñun ak yéen ñoo ci yam ni ngeen ko déggee noonu lañ ko déggee te nit amul lu dul njiitam comme njiit bee joxe décret ne na fi lépp yam ñun dañ koy jàppale ci xeex boobu mënuñu def leneen lu dul loolu di ko sante yàlla nag ah metti na trop metti na si côté bu ne financement beeg waa làmba yeeg même yéen journalistes yi sax metti na si yéen waaw mais teg ñoo ngi ñaan daal lépp jeex si jàmm daal waaw di leen jox rendez-vous nag jusqu'à nouvelle ordre ba lépp xew ci jàmm. kooku mooy am di li mu wax leer na waaw parce que tamit yaakaar naa ne kilifa ak moom bu waxee ci loo xam ne dafa concerné nation bi ñëpp dañ ca war a ànd jàppale ko rawatina lu jëm ci wàllum feebar loolu du lu kenn di caaxaane waaw te olof ne na fu ñuy feese maar kenn du fa jooyab góom euh, maa lay bëggee waat Baba Diaw. lay fay sant yàlla jël si bi. xam sant suma yaay bu baax sant suma yaay bu baax ñaanal sama papa fay mu tëdd xam euh, yàlla xaaral ko àjjana ak bépp jullit bu nekk foofu. maanaam yàlla daa dogal saa yu may ñëw fi si atelier bi laa indi fekk fi ngeen di liggéey waaw fekk la ci biir liggéey bi mais tey nga tëgg combat bu toll ni soq gàmmu géey ah Paul bu daaru Mam Mor Mbagnick Kaïré ak mooy Jacob Balde Modou Séréer ak Kaw Cissé numéro 2 muy ñeenti grand combat ci benn journée Sénégal yëpp di ko ñu ne combat yi kat mënatul la am bépp ndaje public làmb jooj bokk ci yow en tant que ku investiroon sa xaalis. waaw moom laa la wax Babacar sant rek sant bu baax nga xam ne jaam pexem yàlla ak dogal xam kon dañuy sant yàlla bu baax xam nga euh, ñun xam nga ay Sénégal lañ quoi tey suñu président su waxee lii la dañ ko war fekk si xam ma man man man jàngat ma si jàngat man sant rek waaw sant kase. mais combat boo ñu boo ma doon xaymaal tey biit sa combat bi parce que mën naa ne bouclé woon nga parce que samedi nga jot ci boobu nouvelle bouclé woon nga sa combat ak li ci war a def dépensé ak lépp maanaam biit sa combat bi na xaalis lépp ba si añ yi ba si añ joxe woon naa ko xam nga añ yi sax dama ko mujjee bi waaw maam sant ak Babs waaw sant ak ñaan yàlla xam nga bi si monde bi yëpp maam ñëpp am jàmm loolu moo ëpp solo xam nga tey ñu suñu as man man baaba sama askan moo moo ma gën a sama poos man man tey su su ma wóoroon ni tey su ma ko tëggee maam askan bi maam askan bi nekk si jàmm daal moom moo ma gënal mooy tëgg sama làmb bàkk axwaan tey bu ma ko déggee tamit dëgg la sama ko bi dëggee mett mais man mettu man moom du yàlla def ak dama si ànd waaw dama siy ànd quoi et puis du masu mbëx tamit mbër yi moom métti na seen ko trop xam surtout ma Zogab ak Mañik waaw ñoom affaire métti na si ñoom daal ak ñoom Sokh gàmmu am na yeneen booy boo xam ne am booy biddin dafa jóge ba gàmmi bii sami ñëw waaw ñëwoon na sax bii si yëpp ñëwoon na jóge gàmmi ñëw xam nga dañuy sant ak bas xam na trop mais dañuy sant yàlla bu baax waaw. tey su ma ñëwee tey parce que en que promoteur parce que la dal tamit du yow kese la dal xay na yow li ci li tax nit ñi bàyyi la xel dëgg-dëgg mooy da nga sësoon ci bis bi nga xam ne nii la ñu waaw yow yaa waroon tëgg après mooy loolu après déclaration bi am ñu gisoon tam yeneen na ju waroon topp xam nga Fallou Ndiaye waroon na ñëw Papa Abdou waroon na ñëw ñoom ñoom ñëpp daal bëri nañ ñu waroon ñëw après yow maanaam loolu en tant que promoteur tey euh, noo ko gisee ak sa mbokku promoteur yi loo leen di wax comme message. waaw ñoom dem dama leen massa coono xam nga ndax tey suma juumul Papa Abdou Fall dafa war ñëw Fallou même chose Dieye tamit dafa war ñëwaat xam nga Euh, Assane Ndiaye su ma juum dafa woon ñëwaat ñoom nam dama la massa coono daal ndax jo maa dem maa ngi saan seen kii bi sax xam ndax ñu yëpp benn la ñu yëpp ñoo far xam nga maa lañ ñaanal jàmm ñoom ñu am jàmm waaw xam nga wax dëgg massa coono tamit mais loolu mun dégg moom man sama askan moo ma gën a sama poos waaw waaw loolu de moo gën a wóor mais mu mel ni tamit kon euh, loolu nga wax am na solo askan bi moo gën poos bi te loolu defe naa mooy li war a am tey sénégalais yi boo leen doon jox conseil si feebar bi ni mu ñëwee nii ak ni ci jëlee ay mesures loo leen di wax yow. waaw mesure bu gars yi jël baax na xam nga bu gars yi jël baax na tey man sama gis-gis ne gars yi dëpp topp xam nga docteur ñoom lu ñu wax ak ne gars ak ñoom si loolu xam nga te bas man wax wax ji ba sedd ma ko mënee woon waaw. ñaari mbir yi déggante nga ak ñoom soq gàmm. waaw soq moom déggante nañ déggante waxtaan nañ lu yàgg xam nga gàmm mais dama koy woo day sonal rek. mais sa beneen bi laa xam wooyee quoi peut être xam naa xamu ko moo tax jëlu ko mais xam nga comme li ma la wax affaire métti na si ñoom lool mais jàmm pexem yàlla ak dogalam su ma sañoon dañ koy bëre mu jeex si jàmm ma jëlaat avant joxaat leen. soo ko ban réaction la am bi nga woowee. non soo ko Baye Fall la gàmmu dem Baye Fall la d'abord et puis comme lu ma ñu ñëpp ay xale lañ ñoom xam naa ni souvent soox foofu la gën xool sax man bu ñu bu mu ko waxee dañu waxtaan naajement. ni ma baawal lu yàlla def moo gën xam nga man ñu waxtaan si nice gàmm tamit xam nga xam naa moom tam jantal bi meen la xam man daal maa ngi xool rek xool après ñu ngi koy jongale mu mu rafet daal. est-ce que ñu yore làmb ji waxtaan waxtaan nga ak waa CNC wala sa staff pour que après bu fekkente ne yàlla dogal na lii jeex ñu ngi ñaan la sax un yi ñu décrété bala ñu caa yegg mu jeex ci àddina bi ñëpp demaat seen activité euh, maanaam noo xalaatee organiser waat ji maanaam mooy doon bi ñuy njëkk a organiser wala nu muy demee. ah moom daal ñàmme su ma juumul bu ñu taxee waxtaan day ma avant kenn du tëgg yaay tëgg moom loolu la ma expliqué te bab si man moom ci juum man man baay Fall laa man di keneen jiitu ma jiitu lépp benn la si man mais daal nañ xool ni mu gën a rafetee rek dafay ko noonu comme donc ñu ay xalal lañ dañuy soog a ñëw si làmb pour mën na gars yi dañu woon dañu war te te daal teg ñu si yoon ñoom fit sax pour ñëwaat mais amaana tey am na ñoo xam ne su ko mayee rek day tax ñu xaw a ragal tey ñu ngi wax waxu yokk saison bi parce que ne nañ un mois yi ko jëlee ak koor gi ñëwaat muy deux mois yu teglantoo am na ñuy wax waxu yokk affaire bi ba mois de août affaire yu mel noonu yow en tant que promoteur mais en tant que tamit amateuru làmb bon ban xalaat nga am si loolu. waaw souvent moom comme lu ma la wax comme ñun ay xalaat lañ daal euh, suñu magi yi daal lu ñu wax moom man ànd naa si tey bii bëgg naa dool benn combat bu gën neex. ah tëggaat beneen. waaw. Oh. Ah, doo fexe ba billaay dañ koy jéggi ah, waaw say man man toujours dama am ngëm-ngëm boo xam ne lu yàlla def rek dama siy ànd waaw. combat bi nga bëgg a tëggaat ban la est-ce que yaa ngi koy waxaale. jànk la. jànk masta waaw bu musul am. te bu sotee amateur yi ñëpp a siy seen bopp. yaa ngi koy dox. waaw bàyyi laal man siy dox waaw. déggoon fi ci ay jamono nga waxoon ma fi ay mbañi safrla jéen bëgg nga mu bëre double moteur ak ki nga xam ne mooy Quench yooyu yëpp maa ngi doon maa ngi la ci doon dégg wala Garga Mbossé ak Sa Thiès yooyu maa ngi la ci doon dégg ah waaw bii moom combat bu mag la waaw bu mag lay doon te moom lal daal mu ngi siy dox te incha allah xam naa dina sotti waaw boo ko të maanaam boo ko organisé ko boo ko taxawalee ren nga koy tëgg incha allah ah moom lañ bëgg de wala pour tëjee ko sama saison man waaw mbëri fu ñu dëkk ci banlieue bi wala ci biir Médina wala Fass wala Gueule Tapée wala Colobane. non c' la. la yow su la caxee soo ko soo ko waxee mu daal combat bu mag lay doon. waaw mag lay doon. waaw combat boo xam ne moom a tëjee mbër moom foo xam ne mbër mu la neex la ndax daa cosaane muy garga. dëgg lu mu la wax de combat bu mag kay ëmb na ñëpp xaj nañ si. dafa am mbër moom a waxoon ne dafa cosaani ndax ma ne moom da nga ne waxoon mbër mu la neex la xam naa kon te yow bëgg nga tëgg ndax ñaar ñi nga tëggoon bi ma demee seen open press yi li ma fa gis mooy cosaan bi ma demee Pikine dem Tëngéej soo ak lépp gis naa ko fa ker yàlla xam na ne Babs sa fee sa sama fee saison combat bu mag laa koy tëjee allahumma mais bëgg nga ñu yokk saison bi ba mois de août. waaw oh, mais lamb cosaan la Babs. pour man tëj bi sax xam nga ay un la woon doon deux mois gars yi ibiwaat ko lamb cosaan la. warul man su lamb amul dimanche nii war na seexu xadim damay feebar man du ma génn man sama lépp lamb la. sa lépp lamb la ak Serigne Touba. ji. gis ni ma fonk sama liggéey bi. noonu laa fonkee lamb ji. léegi lamb jooju tamit bari na ay yëngu-yëngu fan yi dàqum arbitre yi coow li mel ni bu ma la ko waxati ci dëkk bi ñu ne war am nangam sangam ña ca des wax leneen yow en tant que promoteur mais en tant que amateur lamb en tant que sénégalais diggante arbitre yi ak CNG bi tey dàq bi ñu leen dàq est ce que jaadu na wala. waaw moom laa moom laa waxoon benn benn boy quoi am na ay magum lamb lu fu nekk comme ñun ay gallan dañuy yem paasu gan quoi mais am na ay magum lamb lu fu nekk ñoom mun nañ si wax. mais tamit gan nga d'accord comme promoteur mais doo gan comme amateur lamb ndax yàgg nga si lamb di ko suivre maanaam tey li nga dégg nii coow li est-ce que lu war a am ci diggante arbitre yi la ak CNG wala warul am est-ce que dàq beeg aj bi est-ce que maanaam c'est normal. waaw su ma sañoon ñëpp nekk si jàmm waaw man su ma sañoon ñëpp nekk si jàmm mais xam nga comme ñoom seen problème ñun xamuñu lan la du si biir ndax gis ngeen arbitre yi génn wax CNG tam génn joxe joxe joxe ñoom agal àggal aj bi si biir xamuñu ko. kon dañuy maandoo moom man dama siy maandoo waaw mais tey su ma seetloo nag bëgg naa ñëpp nekk si jàmm xam nga ndax mun dem si kawam quoi. kon daal yow coow li moo la gënalul quoi. non coow wax dëgg yàlla man lépp li daan coow sax lu ma suma ma seetloo ñëpp nekk si jàmm waaw ñuy xàccandoo du dóorandoo waaw mais comme am na ay magum làmb nekk si biir làmb ñoom ñoo woon sos seen dàll wax dox ko pour jàmm mun a am. Bébé Diène sarax nga ko keroog naa mu bëre. bébé xale la. waaw oh, bébé xale la te lu mu mënee dëgg wane gu ko hmm. waaw. a dëgg wane gu ko. wane gu ko. foo yaakaar ne fa la wane. Ba Mbëri du ma daw. ba <laughs> bas loolu koy bàyyi mu seet wala te mbëri daw lan de. Eh? te mbëri commencé kii église sumu jum la nekk. <laughs> non xam nga yow amateuru làmb nga gis nga seetaan nga làmb ji xale bi mu doon bëril fur fourrière loo ma mën a wax ci moom. eh ba sama daal day bàyyi noonu. non combat bi bi laa bëgg nga jàngat. waaw Bébé Diène ak kii nous a frère su leen tëggoon man suba dama leen di yokkal bàcc Seexu Xadim ndax lu ñu def yombul ay xale leen ba bay ñëw dëggal seen bopp bëre ba amateur ñëpp kontaan suba dër ñëpp kontaan eh, frère da nga wax gàcce ngaalaama ndax tey nu mu def yombul. man su ma ko tëggoon ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp ku nekk ku nekk dama lay woo jox la ndàmpaay. billaay ndax làmb dafa neex Assane daal xam ko wax combat ma mais Assane Assane jëndal la de. <laughs> Assane nag da ngay xam ne amateur dafa yàgg ci làmb dafa Assane Diouf ak fu ne jaar na wu tëgg ay làmb loolu moo tax daa mbapat quoi moom. non dama mbapat ndax su ma bi ñu gën nekk tout le temps que mbapat Assane Diouf yi. ñu gën a nekk tout tànk ñun dañ leen dem du ko seetaan ak Serigne Touba waaw doo làmb yu mu tëgg neex na toxam <laughs> ak Serigne Touba Assane daa yàgg ci suuf parce que mbër yooyu ngay wax ay bàcc seras ay saalum Saloum ñu dañ doon ñëw boppatu Assane Diouf moo Djib Diouf fa nekkoon di tëgg muy lu am solo daal mu mel ni làmb xam ko am na solo mais léegi tey fi ñuy tëjee mooy làmb ji tamit am na benn jàngat bu gars yi def fan yi que ni daa mel ni mbër yu mag yi VIP moom ren force ñu bëgg ko ñu bañ ko danañ def année balance ñoom Balla Gaye ñoom Bombardier ñoom Gris Bordeaux ay tafaatin ñoom ñëpp presque dañuy def anne balance ay Boy Niang ay Lac de Guiers 2 yow loolu loo ci xalaat. ah suba seen de bàyyi année balance moom duñ ko def. parce que corona ah, mais mais su ma juumul dañuy yokk saison bi. xaj na si de c'est ay Balla dañuy neexal làmb. Balla day neexal làmb xam nga Balla day bis bis bu bis bu combat am taxawoon làmb dell fu mu nekkoon. Balla Gaye de. ak Seexu Xadim donc dafa am loo ne dafa day nekk si doomu aadama soo ko nangoo xeyrun soo ko nangu tamit xeyrun dafa am loo ne nekk Balla yàlla da ko may loo xam ne nii bis bu ngeen waatoon taxaw euh, seesaat bi làmb dellu fu mu nekkoon. kon daal bu mu la déggee maanaam moom jafe-jafe yëpp ñàkk am kombaam la wala. ah man daal luma la mooy soo ameen komba. laa mu dellu fu mu nekkoon. dafa am loo xam ne yàlla moo koy may nit. bal day jaay komba bay day jaay image day jaay lépp. yow yow mi nekk amateur maam yaa xam ne combat bu Balla ñëw sax promoteur man da bokk na sama rêve man ma tëgg Balla ak Serigne Touba <laughs> looy tàggoo waaw xam di sant ñëpp di sant Dieye xam nga euh, di sant Abdoulaye xam nga di Gibson xam ak suma gars am di Papa Ndaw Aba xam nga ñoom Isaaxa Ndiaye ñoom Pape Sega di sant gars yëpp daal waaw mais lu loolu man maa sant bàyyi laat bu baax waaw maa ngi sant bu baax te lu ma mel ni moom la ginnaaw yàlla moom la. ñu koy nuyu di ko ziar bàyyi laat. tamit jéey tamit ku nekk ku ñàkk ki ñaan. waaw sant yeneen kontaan ci yow. waaw ñoo